bisimilah Modou Lo Modou Lo ñu ngi lay Sénégal ak Sénéweb bisimilah. ñu ngi lay déglu nga xibaar yi ah, waaw waaw maa ngi nuyu ñëpp. Hmm. isam la maa ngi nuyu parcelle un métier xam gars yi li wax naan ibaaru la non dañuy wax lu leen neex rek xam la ñun bëre yàgg nañ ko def xam la ñu ngi si isam la. mais yaa Ama Baldé gars yi ne leen da nga daw de dara jotu la. moom ah, moom moom mooy gars yi nga xamante ne ñoo yor li ñu bëgg a wax isam la man bëre mooy sama métier dama ah, dama blessé woon donc entre reprendre naa samay entraînement isam la donc amatul loolu. xam nga ñun bëre mooy suñu métier ñun amuñu dara lu bëre li wax ibaaru laa nu ma ibaaru. mais booy Niang Boy Niang taxaw na xale la de nee na moo la gën a nekk xale de. non mais mooy day wax leen neex rek. Hmm. amul dara lu nu mën a mën a roi des arènes bi ñoo ko moom te ñoo yor gisam la benn booy ñaar mënu si ñun dara. mais gis nga booy ñaar dem dafa Balla Gaye. non mu daan yoon mais maa ko mën gisam la. Hmm. maa ko mën waay. merci merci ñu dem mënaguñ tàggatoo dañoo kii nii affaire yi comme il y a beaucoup de gens. Ouais. Hein? Vas-y. Vas-y, Libé. Ouais, ben, ils m'ont rentré et on est triste en fait. On a, on a fait genre toute la journée, genre on n'est pas, pas on n'est pas triste, mais là. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vous qui avez fait genre, moi j'ai pas fait genre, moi dès que je suis arrivé j'étais triste. Donc, euh... Non, nous, les filles, on l'a fait. Ah oui, c'est ça, excusez vous, vous avez fait, vous pas fait genre, vous avez dansé On voulait, mettre un peu l'ambiance. on était triste. On voulait. J'avais chapeau comme ça. Ouais. J'étais les larmes qui montaient, mais je voulais pas les montrer. <laughs> pas dire. <laughs> Gardez ça pour vous. Le truc, c'est Et puis, euh... vraiment les larmes qui montaient parce que c'est une famille là. C'est devenu collaboration euh, pour, une cause qui touche beaucoup de monde. Et. Euh, C'est vraiment une famille qu'on a créée, c'est des liens qu'on a tissés. On rigolait quasiment tous les jours, on a découvert sur les uns, euh, a sur les autres, et c'est devenu vraiment quelque chose de très fort. comme j'arrête pas de le dire, ça se faire entendre dans notre musique. Vous n'êtes pas prêts, vous êtes juste pas prêts. <laughs> <laughs> avec une équipe formidable de jeunes filles jeunes femmes ok ay artistes yu am benn projet projet bu noble ba ne dañuy def album bu ñu paree def tournée et les ventes les fruits ah de cette euh, liñ ciy am liñ ciy jëlee ñu jàppale ko euh, ay néew ji doole. mu nekk benn initiative bu rafet. waaye ni initiative bi rafetee noonu la seen voix rafetee moo tax ma sawar ci ma ma ma ci torop ñëw nag euh, ñu waxtaan ñu waxtaan ci dispositif de financement bi ah ci microfinance ci li may liggéey et aussi ñu waxtaan waxtaan bu gën a yaatu rek ci euh, tout ce qu'il y a comme dispositif d'accompagnement euh, pour les jeunes notamment ndax ñoom it et aussi pour ñoom en tant qu'acteur culturel ñi nga xamante ne euh, lan la ñu mën a li leen intéressé daal wax nañ ko te jot nañ ci tontu ça été un moment vraiment euh, convivial waxtaan nañu te man kontaan naa ci torop te nee naa leen euh, lii tàmbale bi rek la dinañ gën a continuer bu soobee yàlla continuer compagnonnage bi ndax lii ñu gis dafa rafet xëy na ku ci nekk si ñoom mënoon nga ne ah man de sama baat neex na mën naa demal sama bopp mais ñu toog xool gis ni dañu am benn projet songandoo ko euh, y a aucun doute que dinañ ko daan dinañ atteindre seen objectif te du leneen lu dul li ma leen di wax yaa leen ko tàmbalee woo ma si mu nekk économie sociale et solidaire ngeen ànd identifier benn objectif fu euh, mettee euh, teg ci seen doole ñun du ñu mën lu dul ñëw jàppale leen pour la réalisation de ce de ce projet là vraiment félicitations à vous kontaan naa torop e euh, on continuera et on vous accueillera avec plaisir euh, partout euh, où nous serons. du lim benn localité ndax tënk nañ ko fi te li ngeen wax bu yàpp naa ko kon nag fa may dem rek ma dugal leen euh, ñu dugal leen ci bagage yi puis on ira ensemble waaw dafay baax chaque jour chaque fois ñu jël benn dat ne lii dañ koy jagleel journée bi pour mais c'est tous les jours cette posture c'est une posture de tous les jours mooy fulla fayda euh, gëm li nga gëm te avancer loolu laa leen sànq loolu laa leen ñaax fixez-vous un objectif donnez-vous les moyens d'atteindre cet objectif-là et avancez yoon bi nag du yomb waaye ku xool fi ñu jóge ak euh, fi ñu egsi tey mën a xalaat ni euh, dara waru waru ñëw të talaatay ndeer am na fi am na fi euh, bu ñuy lim duñ ci pare des figures féminines yi nga xamante ne dañu yàgg taxaw dañu yàgg taxaw pour des causes très nobles ñu gëm ko xaaruñu kenn pousse leen ci te ñuy jiitu mais le plus le le le l'exemple le plus simple muy jigéen ci kër yaa ngi boot yaa ngi togg yaa ngi surveiller jàngu xale yi yaa ngi préparer euh, yére ji mm-hmm. te ñun yàlla daf ñu ko may suñu c'est physiologique ñun suñu cerveau dafa mën a jàpp ñuy def lu bari donc loolu capacité boobu ñu am dañ koy gën a euh, mettre en exergue rek ñu taxaw euh, waxtaan si xool fan lañ ci toll mais yàgg na fi te du fi jeex bu ñu yaakaaree ni benn fan lay jeex du jeex benn fan mais lépp rek nañ ko def ci jekk ak teraanga ndax ñu ne góor yi ñoo dëkk ñoom ñooy suñu ay alaaji ñoom ñooy suñu ay frère ñoom ñu nit ñoom ñooy suñu ay doom euh, dëkk bi ñun ñoo ko bokk ku ci nekk li la war rek na nga ko def bu ko defee euh, on va atteindre tous ensemble les les euh, les objectifs vraiment j'en profite pour souhaiter une très très très belle fête ah très beau enfin et souhaiter une belle une une bonne fête à toutes les femmes ñu nekk ci mois de mars bi mu nekk mois de la femme ñu nekk nag ci at bi mu nekk année de la femme ñu nekk ci tous les jours c'est la fête de la femme merci def lu ñagas am lu ñagas kon bokku def lu ñagas am lu ñagas sax si moo jafe xëy di lewato di lewato di lewato ba xëy daay seytaan ñëw moom sa bakkan ci axiru zaman zaman zaman zaman zaman ma lu naay am lu naay def lu ñagas am lu ñagas def lu naay am lu naay def lu ñagas am lu ñagas moom def ma lu naay am lu naay def lu ñagas am lu ñagas boo oh, def ma lu naay lu naay lu naay lu naay lu naay. Remember, remember the black

What is that? Somebody's morning. Let it go back home. Just think about yesterday. Today's all now. Tomorrow's today. They got all time. I'm on it. I'm on it. I'm on it. We all know life. In the middle of life. waa dégg nga. non non non non non gannaaw. dañ laa soxla. kole kare kato lome dana fo lome tame name kalo lome nana ko lome tame name karo lome nana para name tame tame karo lome nana bara name tame tame tawo lome dana bara lome dana bara lome dana bara bara bara bara bara

table bi en présentant waaw mm. mais tonton te ku ko gis nag foog ne lu am fekk na yàlla xam wàllum ko gis nag foog ne lu jëm ci wàllum émission bi la Ameth Ndoye bind fekk na nekkete yoo nekkiri bi rek la doon xaaraan Ameth Ndoye tax kenn toggatul jën ci kër gi ñu dem fii lekk ñu ko fi jën na mm-hmm. nawal boo teg nga seeñu ko lekkum Ameth Ndoye gi mu fi nekkee lañ doon waxtaanee mairie wax ci sa xalaat wax dëgg fa neex yàlla mm-hmm. Ameth suñu dépense bi moo ko jeex waaw vraiment ndax mënuñu nekk ci kër ñu nekk fi ñun diis ñu war a lekk. nekk di gis nañu dañoo sonn dañoo. Mm-hmm. billaahi mm-hmm. ay appartement lañ am. appartement la ñuy leer kër gi. Mm-hmm. bu ñuy ndekki mooy njëkk a toog ci table bi. mooy njëkk a ndekki mooy njëkk a ndekki añ bi moo koy njëkk a. mooy njëkk a ubbi pour xool moo nekk ci añ bi reer ba duñu ko bàyyi. day war ñibbi sax. muy direeku ci buntu bi ci buntu bi ameen dooy bàyyiwul dara donc loolu day important daal Sénégal yëpp xam ne <laughs> sonal nga ñu daal sama law bay yee koy bu ñu bëggee mu siiw faaw mu jaar ci kër boo demee sama law bay yee koy ku am ay mooy wàcc waaye ana cër si tax ki tax di war a ci tax waa dafa ni waaye boo boo kii di sa loxo yi dafa maa ngi lekkal bu ndaw man ma jël wax si kii bi ma ko wax ma lekkal bu ndaw. siltu leen ma arena ba ndax dama mbapat.